تبت في ظلال وفي مستودع قيس يخصف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مخة ولا علق مطهرا تركب سفينة الجم نسرا وأهل الغرق ورق نار القليل مكتتما تجول فيها فلست تفترق تنقل من صالب إلى رهم إذا مدى دم فلا تبقوا فتحتوى بيتك المهيمن من عندي فعليا تنطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض ودانت بنورك الأفق فنحن في ذلك دياء وفي نور وسبل رشاد نعترف اللهم إنا نسألك بجاه ممدوح لك والمادي أن تعزم حزنا من ذلك النور والدياء واهتدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تبت له أخلاق أيروم مخلوق سناك بعدما أثنى على

يقدروا ويشهدوا ولما الإله مثل النبي إلى أبي إذا قال في القمس المؤذن واشهدوا وشق له من اسمه يريد له وذراس محمود وهذا محمد تأتي به ناقة الأرماء معتجرا بالبدر كالبدر جل ليلة الظلمي وفي آتافيه أو أثناء بردته نادى الله من خير ومن كرم إن رسول الله سيف يصدى به محمد من سيوف الله مسلول وأبيض استسقى بوجهه سمال اليتامى اسمة للأرابي يلوز به الغلاة من الياس فهم عنده فيها عن شرفاته منزه عن شريك في المحاسن وجر الحزن في غير منتهي لا من دون ساف نميم واحكم بما زدت مالا في وقتك وانظر الى ذاته ما زدت من شرف وانظر الى قدره ما زدت من عزل فان فضل رسول الله ليس له ارض فيربى عنه هناك والبكم لو سبت قدره اياته اذا ما الله اسمه حين يولى دارس الرمم لم يمتحنا بما كان العقول به إذا علينا فلم ندر لم نيم عيا الورى فهم مناه فليس يرى للقرب والبر فيه غير منفهم كالشمس تزهر للعينين من بعد سخيرة وتلقي الظرف من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته أو من منتسل له للظلم فمملأ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي شاء ومن له حسن فقط وأحمد الهادي الذي عليه جبريل الأبد محمد البشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الأجل محمد البشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الأجل محمد البشر لا كالبشر بل هو كان يخرج بين الاجر اللهم صل على من فاتيته لبدء الايجاد براءة السلاح ومن حاتميته براءة المحتم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعن حسن لكتك وامام زائد رحمتك وطريق سريعتك المتلذذ بتوحيدك من سائر العين وجود فسبب لكل موجود عيني يعني خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تنتهم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة الله تعالى دون علمك صلاة تبديك وتبديه وترضى بها عنا وعن والديها وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين الجبال إن لم أكن من منفلين بحبي فزنايا وبدايم وبيدم طيب لنا فزنايا واتل لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى يعني يا ربي بما الهدي جميع بمن تقيم دين أقيم بها الهدي سميعا بمن تقي المدين حبيبي سبحانك ربي للأرض والسمي بكل قلب مختلف ثنية ربي بما الأتي سمي بما تقبلي أكرم بها وأملي هذا المثال الفرحي صار الذهاب الفرحي والفخرنا والمرقي صار النبي الأفضل أكرم بها وأملي سر الفلاح والسرور أكرم بها وملئ لم بسار الناصري لأحسار الآكري بالانفسار الزاري بكل واسع أقبل ثانية

Anyato Rabbi Bhimadati بها وعمله أهلا بسارة مصطفى خواتك لما Dida

بملأتي سميع بمنطق بديع أقربها وأملي كما تنال ظهور كما ترى القصر فيه وحال القصر بسلم المبجل طريقة ربيع بملأتي سميع بمنطق بديع أقربها

Daniel أوله من نزول افتالي بأفضل الليالي بأفضل الليالي بالبلد المفضل يعني أن ربي بمرأة سفيه بمنطق البريء أقرب يا محمد اليوم Amen. صل ما للاسم من جليل ينجلي تانية ربي بملاتي سفيه بمتقي بدي أهل بها وهمني بحمد الله Maria. سسير الكون مقامي المبجل كان يتاربي بمراتي سفيه بمتقم بدي أحبي بها وأملي أكرم بزار العجمي بلا زار matin.

ونادرا نبيا لنا تسيقيا بدايا أن يقول بي بمرأتي Njaay والسلام على المرسلين رب محمد التجاني جزا الله لنا عن وارث السر حماء شيخ الإسلام وبركة الأنام الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله Tijani Alkawlahi دانك كادو جي du bëri كي دون doon def def نيم كو ورا ko te matele na ko nim ko war a matale macha allah weesu na sax njortu yi euh, Cheikh Oumar Ba ñu ngi lay ñaanal yàlla tawfiix euh, yàlla na yàlla yokk xam-xam bi matal ko waaye tamit ak ki fii jaar démb muy Cheikh Mam moom it kazalika nii la ko defee kon lii rek mooy mbir mi dañ ne nañu commenté waaye commentaire ci yonent bi nan la ko nit mën a defee ki nga xamante ni léppam leer la boo bëggee wax ci moom sax est-ce que doo lëndëm ndaxte lu leer ba ñi ba leer leeral ko boo ko nammee leer laat damay ragal nga lëndëm kon yonent bi daal lu may ñaax sama mbokku taalibe yi ak mbooleem jullit yi nañ xam ne weeru yonent bi teeru na te weer bii ku nekk na nga fexe ba yokk sa ngëm yàlla ku nekk na nga fexe ba yokk sa mahabbatu ci rasulullah waaye tamit ku nekk na fexe ba yokk tabeem ñun ñëpp nañ fuglu yonent bi guddeeg bëccëg jamono bii jamono fuglu yonent yàlla muhammad la si suñu xaatir yi ci suñu nelaw yi ci suñu dox yi ci suñu toog yi ci suñu lekk yi ci suñu naan yi nañ fuglu yonent bi ndax loolu rek mooy jëriñ nit ki boo tëlee fuglu yonent bi ci at bi yëpp alti démb dama toog di xaatir naan feetu yonent bi ma ni nit ki lu mu gàtt gàtt xel xam na ni altine bu ne feet la ci feetu yonent bi sallallahu alayhi waaye bu la yàlla mayaatee tawféex nga fekkee juddug yonent bi yàlla musal la nga bokk ci ñuy weddi loolu yow santaatal yàlla nga xam ni yàlla tànn na la ci ñi gën ñi ndaxte nga ngëneel weesuul bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg ko ba toog ngir moom jotaay bi bu mu tàmbalee ba léegi ñëpp a ngeen ni tekk dara yëngatuwul kon loolu mooy firndeel di mbooloo mi ñoom cofeelu yonent bi mu ngi ci ñoom yàlla na ko yàlla saxal euh, di ñaanal sëriñ bi Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye yàlla na yàlla yokk mbiram ku ñu ne nanga nanga na nga boo waxee lu bari dangay mel ni ku bëgg waxtaan te waxtaanu kon xam naa fii la ñuy gàttal wax ji rek salaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu. baax na ñu ngi ziara ñëpp ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ngi ñaanal yàlla sëriñ bi yàlla yàlla dëgëral ko di ndokkeel uh, Omar Ba ci waxtaan bu kawe bi yàlla yàlla dooli ko tëbb sëriñ bi. ñu ngi ziara Bécaye mbokk taalibe la boo xamante ni tey macha allah liggéeyam ci faydu bi ñëpp xam nañ ko démb la burdu bi tàmbali mu ngi ko defee Njolofeen mu ne nag ndem Njolofeen nag ñëpp xam nañ ko sa taxawaayam ci faydu bi kenn du leen naatable lu ñu yëngatu Cheikh Ibrahima Niass yaakaar naa ñoom ñoo fi njëkk waaye jamono dox na ba Cheikh Aziz tamit fu ñu tudd Géejawaay ci faydu rek ala foog danañ ko tudd mu ne kon fii mooy doon deuxième bërëb bu muy defee ay directam ñu ngi koy ñaanal yàlla li nga xam moo ngi koy liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass yàlla na gën yaatu lu gën a kawe njottam ba mu dem ba am boppam boo xamante ni day daj adduna bi ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass sëriñ bi moom bëggoon na waxtaan waaye dafa ne burdu bi ren da koy bàyyi ak yàlla yi ñuy ñaax suñu bopp ak ñëpp ñuy teew di wax rek ne sëriñ bi aussi joxoon nañu ay dog yoo xamante dafa bëgg ñu liggéey ko ci ci ci fukki fan yi dem moom bëggoon nañ kaa def mais jotaay bi ba ma xatoon képp ku yàlla mën loon nag te mu mën a toog mu toog ndax sëriñ bee ko joxe digal pour ñu ñaanal ci mbooloo bi ñaanal ci Cheikh Mouhamadul Amine Ibrahima Niass pour yàlla guddal fanam dëgëral ko ñaanal ci képp kuy taalibe moo leen Cheikh Ibrahima ñes ñëpp xam nañ jamono bi ni mu mel ñu ñaanal leen ñëpp yàlla aar leen musal leen ci lépp lu xew kon képp koo xam yàlla may na ko tawfeex mu mën a toog mu toog bu ñu paree ñu ñaanal sëriñ bi ñaanal mbooloo bépp ñaanal Cheikh Mouhamadul Amine Ibrahima Niass yàlla guddal fanam moom ak njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima ñaanal xalifa bi yàlla yàlla guddal fanam ñaan imam Cheikh Tidiane ak i rakkam yàlla yàlla dëgër leen may leen gudd fan ñaanal képp kuy muqaddam di liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass rek yal na yàlla dëgëral la sàmm la aar la kon bu fekkee kàddu yi matal na loolu lañ ci bëggoon dool incha allah kon buñ paree képp ku nekk suñu mun naa toog dogi yàggul même pas 30 minutes wala benn 45 minutes rek ñu pare incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah